waaw ah, danoo danoo bëggoon wax si si si tësu euh, le treize septembre bi rek. waaw. waaw ah, parce que ñun ñu ngi bitim réew la nekk nii si nekk nii. Mhm. man nekkoon naa France. Mhm. seen histoire bi du ma ne xam naa ci lu bëri mais femme boobu dafa da dafa dafa marié woon dafa am dafa am ñaari jëkkër. ok. waaw dafa marié woon. Mhm. dafa divorcé fii tamit. ah bon waaw. ba mu demee ba ba ba xam ne affaire bi lépp lépp day feeñ si la divorcé. Mm-hmm. waaw en lim mu demee yëpp ñun ñun xam nit ñi fi xam na ñi fi nekk sénégalais fi xam na li mu demee yëpp li def yëpp ñi xam nañ ko avocat am boobu muy wax noonu avocat bi avocat li mu wax yëpp dara dara dara dara du ci dëgg parce que femme bi kër gi moo ko soxal. waaw mm-hmm. parce que dem na ba nga xam ne ni moom mënatu la dem am na ay problème mënatu la dem loolu moo tax mu. engagé ex jëkkëram bëgg jël kër googu. Mhm. mais lépp li nga xam ne ni mu ngi koy wax dara dara dara dara amu ci dara dara dara dara dara amu ci. ok sëñ sëñ bi yow kañ nga xam femme bi. dégguma. kañ nga xamanteeg femme bi. femme bi ñoom ñun fii lan fii lan ko gisee fii fii euh, France fii lan ko xamee. d' accord dafa am foofu beneen jëkkër. dafa am beneen jëkkër waaw mais mais mais tas na. ah d'accord donc dafa tas ba pare dogo euh, dinañ ci jëkkër fii Sénégal wa d'accord lool la voilà dafa tas waaw dafa tas mm -hmm. ba pare amad beneen ah, avant muy tas amad na beneen jëk avant muy tas parce que ñaari certificat parce que euh, premier jëkkëram bi allô -hmm, uh-huh, ma ngi lay dégg yow rek lay dégg mané premier jëkërëm bi bi nga xamné mom la amal doomi hmm fam bi amal na benen jëkë ta xamuko wa bi da amé bi da amé problème bi amé problème hmm wa ok jëre jëf ñu ngi lay sant di la gërëm euh, sëñ bi moom dafa wax fi mu nekk ba toog li nga wax xam nga ne xamoon ndaw ci ndaxte boo ko xamoon first premièrement di nga ko suturaal te bu fekkee ne dafa jug ngir kër gee tax ndaxte dafa am ay doom te normal na mu am fu mu dëkkeek dëkku dëkkuwaay kon dafa tas ba noppi am jëkkër loolu dara nekku ci waaye taxal nit ki foo xam ne wala dëkkalee ko foo xam ne dëkku fa li muy wax bu du woon dëgg du ko wax dafa wax li nga xam ne moo nekk ñun dañoo war di bàyyi di supporter benn côté te duñu xam histoire bi ñaari côté yépp lu ñu dégg rek lu ñu ne tël rek ñu ne toj na te ñu xam lan lan ak lan na ko toj ak lu waral loolu kon boog balaa ngay jóg di wax naan femme bi xam nga kook yéen a ngi France ak woon na ma si ma déggandoo ma riirandoo rek nga jëlee sa information pour ñëw dugg si fii pour mun a am loo wax xama xamal leen ne jigéen ñi dañ leen war a suturaal ndaxte bu fekk tey jiini bu demee ba mel ni mu mel fa mu jaar a tax mu mel ni mu mel waaw soo donc am na yenn yoo xam ne bu ngeen koy dugal dangeen koy xoolaat bu baax saytu leen ko tey jii nii bu doon sa sœur la wala bu doon sa yaay la wala bu doon sa xarit la doo ñëw rek ne nii ni bëgg koo xaawi suturaam xamaat leen seen bopp bu baax lii la ñuy def Sénégal waa tës a ngi nii di tës tësi di tasaare xibaar yoo xam ne dañuy ñëw rek commencé attaque benn nit te duñu xam li dëgg fan la dëgg neexul nag da leen suturaalante bu ñu jógee naan benn bopp lañ réew mi benn la ñoo bokk ndey ak waaye ku si def dara rek balaa ñuy am jàmm mu génn li de charia de lu mu si wax moom daanaka xaram de moo si jiitu moom ñaari jëkkër kii de xanaa bu fekkee ne am na si jëkkër jee ay tuut tànk de doom yooyu yëpp dara dara dara valable si de xanaa doom yëpp a xaram de ah doy na waar waaw moom alalu àdduna moo ko jaral lii ah awa soxna si mom mbiram mom doyna na de alal aduna moko jaral li ah doyna war man dal man dal jigéen ñi daal xaalis lañu bëgg seen bir xol bi dañu bëgg khalis khalis rek lañ bëgg waaw dañu bëgg khalis waye ki xam nga ne gàcce bi fan la koy waxé gatché gu doy war gi am ñaari ñaari jëkkër ah, di tuuj fi tuuj fele ba nga démé ba am ak sa borom kër jafe-jafe nak nga bëgg ñëw nangu kërëm ga nga xamantene mom la am ah kii dafa sadik sax kii dafa sadik kii de bu doon man de du laal dara waaw kii de bu doon man la du laal dara waaw Sénégal nag moom mi ngoog rek doy na waaye kenn mënul wax lépp doy lool waaw lii moom kilifa yi war nañ ko lijjanti ndaw si moom ay kilifam war nañ ko lijjanti bu baax a baax a baax ku góor gi tamit ay kilifaam war nañ ko taxaw war nañ ko taxaw ndax lii euh, góor bu lii dal moom maanaam moom say mbokk ak say kilifa war nañ la taxaw jàppale la ndax lii moom euh, affronté ko yombul macha allah doy na waar waaye nag euh, yàlla ki yor dëgg rek lay àndal te ku dégg kàddu yi nii xam ne maanaam moom ku góor ki rek nga xam ne moom moom moom këram ndaw si bëgg ko jël moom moom moo nekk si dëgg waaw waaye nañ ko nañ ko waxtaane daal nañ ko waxtaane nañ ko waxtaane ndax lii lu ñuy waxtaane la te ñu yedd ko nag ndax nit day jub nag soxna si jubul dara ëpp na doy na waar daal doy na waar dafa am benn xale bu jigéen keroog mu woo ma ne ma salaada ba ma ne ah ma keroog de waxoon naa la ne euh, suma borom kër bii daa keroog maa ngi fi ñëw sa kër di la waxtaanee di la ko waxtaanee waaye kii eh, daal dama dama ci bëgg a génn ma ne ko ah bokk ak ki la fi takkoon ci weer wii mu ma ankay ma ne ko boobaag léegi de motu du weer <clears throat> mu ne ma ankay eh, tey la tey lañ am vingt cinq jours waaye maa ngi nii bu ma ñibbee daal dina ma abal ma ne ko tegal ma ci juróomi fan yi rek bu ko defee ñu ne sëyoon nga un mois doy mu ne mu ne suma yaay kay ma doon wax ne eh, jigéen de. yow sa sëy ba lay yàggutoon nga bëgg a def bii yàggut ma ne ko sa yaay de daf laa bëgg a indi sa yaay xamul luy gaafi jigéen gaafi jigéen mooy dañ euh, may dañ ma naan weeru jot ma sëy ma ne ko xale dafa war a sëy douze douze jëkkër la war a ma ne ko fukki jëkkër ak ñaar la xale war am bu màggatee ba bay jaaw am six ma ko suma classe nga six rek ma amee baax na ma ne ko war yéen douze ngeen war a am ku amul njëriñ ngeen sànni ku amul yar ngeen sànni ku leen yërëmul yërëmul seen day ngeen sànni samedi ci samedi ci 2 5 heures bu sey bu baxul dimanche 5 heures tassal muy 24 heures mané ko fu ngeen jëmé bax naam baxul ak lu ngeen di muy muy muna na mané ko la ilaha illa ndey lañu muñal ak baye waye ñi muna na mané ko doom sax am lo xamni do ko ci muñ saka ana yow ana man fekk la nga nek robot sul fet bu ju robot sul fet ba pare ñi ñu sol la muna na mané ko yoratu lu yërematu la mu ne aw na ko waay gune gi doom noppale ko waay génnal waay pour yàgg pour yàggal sa bopp léegi nag mu dem ci fi muy salon bi nga xam ne moom moo ko yore nee na ma ba ma ko nettalee xale yi nee na xale yi kenn mënatul lit ku ku ku téye jub rek daanu ne waaye ana maire bi mu ne ko meer ba ngi fi mu ne ko maire bi li mu la wax dëgg la de mu ne ko sëy bu baaxut altine talaat dindil bu baaxut àllarba alxames dindil bu fa ne di muñ bu fa ne di maslaa sëy ak bëñ bu ba ne yem. moo jabar ju bon a yem dindi sànni jëkkër ju bon dindi sànni adduna yàggul xale bi léegi nee na loolu lay ree di ko ree di ko waxee mu ne ma daal sa dama lii nga ma wax mu wax nga dëgg kay ma ne ko danga ne damoon un mois rek bu ma un mois cinq jours nga ma ci tegal muy mois nga dindi bo ko yàggal de ay la ilaha illallah mu ñu àdduna gi nit ñi wéra di ñëg problème yi nga bëgg cee boole mu ko koo xamul fu ko ndeyam jure pour lan émission bi daal li ko tax a jóg lenn kepp la maanaam mooy défendre population bi. bi si wax yi ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koy génnee rajo yeeg télé yi nekk fi. lu nekkoon ci biir néeg yëpp seen émission yooyu ñu koy génnee di ko xaawi sutura yi te àdduna sutura la waaw fii daal luñ fi génneeti rek di xaawi sutura yi dinañ ko jël defaraat ko ba mu baax dugalaat ko ci biir kër yi dugalaat ko ci biir néeg yi sutura am àdduna sutura képp la kon na ngeen teewlu saay su ne émission bi waaw jaa ngeen jëf.